fii ci biir plateau bi ma waxtaan ak moom dërëm bu dee mën ngaa ñëw sama wet ndaanaan noo ndaanaan muy mag muy xale muy góor muy jigéen nga seeti ko waxtaan ak moom ngeen waxtaan ah jokkalante rek sansante ay wax bu ko defee nga indil ma ko fii ci biir plateau bi nu waxtaanee ko tarkal aka a jongo ma <laughs> mais dërëm àddunaa ngi lay déglu noo def. di la bëgg rek eh, taalibe borom daaru. Mhm. am mbégte rek jàkkaarloog yow. tubaarkàlla macha allah nga xam nga dërëm avant ngay nuyoo maa aussi dafa mën a tooñ yaa ngi taxaw mu naan man dërëm doomam bu amee doom nu mu war a tudd 15. 15 am na 15 nee ko 15 moom caterpillar maaw caterpillar la moom tourné rek la fi nekkee addunaa ngi noonu eh, Sénégal dañ laa namm fii ñu bëgg la lool lool lool nga war a ñëwaat ci Dakar na door plus indi fi lan andi lu bees tàq loo xamante ne tubarkalla macha allah dañoo nekk ci période mbas mbas mi nga xamante ni ah dafa lëmbe àdduna mm-hmm. yóbbu fitu ñëpp mm-hmm. ñëpp toog seen kër benn xumbaay amatul mm-hmm. benn rumbaay amatul ñu nag waa ñu namm ko bëgg suñuy téléspectatrice ak suñuy téléspectateur moo tax dañuy dem fekki leen ki ñu gën a bëgg ci seen xol mhm. ñu dem fekk ko ci këram jël ko mu ambiance leen woyal leen wala mu taasu leen ba seen xol kontaan loolu rek moonu tax a jóg bëgg naa nag comme euh, bii mooy première bi ki ngay njëkk a indi mhm. bul ko wax ma ko wax kenn du ma ko ci wax kenn ah. parce que xam nga ah. euh, euh, la ko la mu saf ka ko màcc mhm. ko xam te bis buñ ci yeggee bu ngeen màccee rek di ngeen xam ni kuy dóor mën kuy saaga te danoo pare ba pare nag déglu suñu tuuf mais dërëm baa booy dem ci nit ñi di takk sa masque laay lay la laa de xoolal am naa sax gel bi pompe bi takk samay masque ba pare nag ñu daan ku ne waaw gis nga euh, gis naa daal di dandante noonu la ah, euh, tubarkalla allah yàlla daf ñuy dimbali mm-hmm. ndax yàlla mi nga xamante ni moo wàcce mbasam ñu ngi koy ñaan mu sekkil ni ko nit dëkk sànni ko ba euh, doomu Sénégal yëpp mucc ci ak nga xamante ni amu ñi jot a am nag ñu leen di ñaanal yàlla wéral leen ba ñu dellu siwaat ci suñu société bi ak jàmm ak sa dërëm doo wàccegum léegi ci plateau bi da taxaw fi wéttali ma ba ca kanam kanam xam nga man damaa ragal wéetaay te am na lu ñu doon waxtaanee sànq fee ci suuf a jib ci kaw mais bëgg naa après ñu yeggale suñu waxtaan ñu lu am solo walaay dëgg la <laughs> walaay dëgg la walaay dëgg la <laughs> waaye nag lees waxul ñaar xam na ñett <laughs> xamut dañ leen koy dëxëñal ci biir rek ndax xam ne moos billaahi pare leen te toog ci fëtë jël ataaye teg ku ci nekk koo bëgg a toogal toogal ndax lu ngeen musul gis di ngeen ko gis lu ngeen musul dégg di ngeen ko dégg ndax damaa jàkkaarloog of mbay mhm. mu ñàkk ñaan lool mhm. tubaarkàlla macha allah amen ñaan ne ci wet gi ma mhm. ñu a borom daal waa sikkoor a ngay toog eh! ataaya ja moo ku la xool gis leen. Eh. ci mbaax gi ci simple bi bëgg sa bopp. Eh. ah waaye borom daaru chapeau maa ngi nuyu maam Thierno. kenn du yow sama waa ji dërëm. ay moo toogee ci télé bi te tarkalla eh, noonu la ko noonu lay xoolee programme yi fi mbokk taal bi nekk rek maam Thierno mu ngi lay bàyyi xel bu baax a baax ñu ngi nuyu sikorien yi bàyyi daaru yi ñu ngi leen di kontaane mbokk taalibe yi ñu ngi leen nuyu bu baax a baax a baax a baax et puis di leen jox seen wàccuwaay am bongo bu noppiwaatee dërëm damaa bëgg ñu partage man ak yow ambiance bi nga xam ni ah, moom la am di waaj defaat léegi léegi parce am nag dama bëgg mu fekk suñu waaw ci dina mel ni dege. waaw ana am. maa bëgg am ñëw ci Dakar la door pluie gi. dootu ko defati ci àdduna bi li ñu wétali. billaay wallaay wala yi xam nga lii. ci biir TFM rek la te dañoo bëgg suñuy gars yi ndax xam mm. nga ni gars yi namoon nañ Dakar na door plus mm-hmm. nam bi ambiance bi nam la yow mm-hmm. comme bu ñu ñëwee dañoo indiwaat yeneen i fem yoo xam ne tubaarkàlla macha allah sama gars yi toog leen ci fauteuil yi gën leen a weer bu nu kenn catal da ngeen di toog faax yow xalaat nga ngay dem ci kër yi uh-huh. di ñëwaat di ma fekk si fii ñuy waxtaane li xew ci kër yi am nekk ne fee ca wet ga waaye toq sa bënn lay doon bu samedi bu ne nga am ambiance fii ci wet bi waa dërëm loolu lan lay joxe loolu kay dina mel ni euh, boo ngóor jaayee mbaam ma ne nopp yo du def ngóor dafa réew de <laughs> ne mbaam bi moom dana dem ngóor daa yabaate e eh, bu ngeen noppee rek ñun noppi nañu donc dañu joxaat am bongo wax naa ni ambiance du ngeen ci doyal waaye ñun ambiance duñu ci doyal na xumb rek na xumb rek am problème Sénégal réseaux sociaux phénomène Sénégal. xeeti ñaawte fi ci nekk laa di tegal nii bi du ay foo nga ubbi sëb si dugg ci sama compte daa di ma yëlëb ba ma set yóbbu ñaate diri jigéen la fi yàq mënatu ko defar. ñaata sëy la fi tas lim ba bëri nga nekk safar nangu mu di lay futti ba di la photo bés ñëw réer war a am mbaa du ko publier yaay baay ci biir kër gi talatunu wax bare yaay ak doom ci biir kër gi talatunu wax bare ku nekk nga di sa portable di lancer vocal réseaux sociaux problème Sénégal réseaux sociaux waaye phénomène Sénégal. fexe ba xam sa problème fexe ba jël ko wili pande def na la bëy bu jur paaka sa soppe toog di jooy sa noon toog di reetaan na fii lu ko fi jar Amadou Ndaw bàyyi neex du geen ma bax lu ma neex aba ñu may góonte lu ma neex ñoo fi jëloon Sky teg ko ni tege du ñoo fi jëloon Viber teg ko ni di moo jaar na fi jàll mu nga nee di dem tey leen Facebook Instagram WhatsApp TikTok na Sénégal tey ci nag réseaux sociaux mooy phénomène Sénégal eh, réseaux sociaux ah. Sénégal jàmm fi am jàmm rek a fi war a am ndax gaa ñu baax ñi fi nekkoon te daan def lu baax ku mel ni Buukunta Masa Jaasaan du fii la tëdd. fii la tëdd. Limaamu Laay Masa nag du fii la tëdd. fii la tëdd Maam Cheikh Al Islam borom Medina du fii la tëdd. Xaadim Rasuul Masa Tuuba du fii la tëdd. Maam Alaaji Maalik Si moom daa baax du fii la tëdd. kon nañ leen defaraal xel yi te jéem a fóotaal xol yi àdduna bi jeex na ba noppi yardık malava. Bu yeddi yardık malava. Xoolal maa fi waxoon pati leen ko. leen ko. bilaay maa fi waxoon pati laa ko. yaa fi waxoon pati leen ko. dërëm maa fi waxoon du maa fi leen ko. waa léegi te a xool abaa. raxaw leen seen xol bi te jéem dugal gone gi. abaa denc mag la kat kenn du fa woon du siis dama koy teg ci xelu gaa di ñu firil ma ko eh, dug leen di ñu mbëkk di mbëkk abaasu tey ma bàkk sama seex al islaam jaaj jaaj riis sàmba coro faal jaay la ñas mooy góor ga juddoo tay ba kii moo yaroo koosi mooy bàyyi papa daam mooy bàyyi seex si jaan xoolal Moustapha yonent bi moo jëloon doom ja Faatumata avant daa ñu koy dëkk Seydina Aliou yàlla may ko ñaari seexi góoru Seydou Assane Seex Aliou la am jël doomam ji Faatumata Zahra daa ñu koy dëkk Seydina Aliou Cissé yàlla may ko ñaari seexi góoru Seydou Assane Moustapha jëloon doom ja Faatumata daa di koy dëkk Seydina Aliou yàlla may ko ñaari seexi Seydou Assane Seex Aliou la am jëlaat doom ja Faatumata daa di koy dagg Seydina Aliou Cissé yàlla may ko tay Cheikh mu Imam Assane xoola bu suba ca góor na daal ee eh, jar bi ja doom ja doom ja aba koy nampal da koy tiim doom day non eh, dama doy waar dama ne Aba dootul métti dootul métti dootul métti. borom bonekaare bi teg na ca loxoom daa fay sàtt. moolu tax xoolal dinaa la waxal yi ñaar Aba bu ko diggante man mi maa la ko waxal dërëm mëq naa siim naa def naa sëñ def naa. fi ma nekk nii dara feregew ma ñeme ndaw li nga xam a bari gis nga ni ma fii ki dimb te ñeme laajoom ba wax lu ma xamul xoolal doom day jël doom day jël doom day jël ababa koy nampal da koy teen doom moo lu tax abaasu ko kenn du nelaw aba mo dërëm nanga def maa ngi lay nuyu nanga def ana sama nijaay fu mu ne maa ngi koy nuyu lu def xanaa xamoo ne yow bël jaay na soow jaay na meew xëy sàmm ta amu ci dara jàll picc ni jaayi xëy dekk te am tulu doom day ja doom day ja moo lu tax suñu mi ñoo ko moom bu leen ñaar bu kenn weegal jaatu lu ne ku bu ñoo ànd mbooloo rek ne doon benn mooy suñu njëriñ ñaara man kenn tëjatu e eh, aba jëlal sa bic cim sa kaya bind andaw lu mu wax du ca dellu ay raba moo koy dee mana naa su biir yow du ko dindi dama ne aba la daloon yaya dalu la aba e eh, la daloon yaya ma déglu yow xam nga Yaya Jammeh li mu def oote guerre ba mu ñëw déglu ma oote guerre ba mu ñëw mu daw na ma tokkane laay ba na ba taxaw waay tubaarkalla kon yow xalaat nga ni nit ni fi ñu toll nii dinañ leen toog seen kër di wéet. xalaat nga ni nit ñi fi ñu toll nii dinañ toog seen kër di annulé wu. ñuy toog naan eh, eh, eh, fa ñuy dem ak ay toog leen seen kër. toog leen ñu di leen bégal ñun ñooy wuti. <laughs> Ah, indi jox leen ngeen bég seen xol feex. xanaa neex na yomb na ci yéen na ci yéen wax dëgg yàlla tubaarkalla waay. Ah, dërëm yàlla na la yàlla fal ci plateau. Mhm. Aba. Mhm. ci plateau. Am Ndaw. Oh. ci plateau. Oh. ñay tëgg ñay way ak yeneen surprise yoo xam ne ñu ngi fee toog te dañuy ñëw léegi ci plateau bi euh, donc yaakaar naa ne kuñ ñe toogal seetaan nga war a toog seetaan di nga toog seetaan ndax tubaarkàlla li ñuy indi ci suñu xol lay jógee bëgg koo dugal ci seeni xol ngeen di ko bége tubaarkàlla Dakar na door plus la ñu wax dégg yow da nga may gungewaat tuuti ba ci kanam maa la bëgg a téye téye la ba ci kanam